maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne euh, li benn série euh, beneen bu bees la jëm ci li ñu wooyee Microsoft Excel moom tamit benn application la bokk ci Office euh, Excel di application bu am solo boo xam ne ñu tamit dama leen a jël ay quelques vidéos defal leen ko pour ngeen xam ni ngeen koy utiliser daal léegi bi mooy première leçon bi comme ni ngeen ko gisee introduction laa ko wooyee léegi dañuy dem euh, ci page bi pour xool Excel mooy lan comme ni ma ko bindee ci présentation bi comme ni ma ko waxee Excel mooy programme programme classeur la daal euh, bu lay permettre nga mën a garder organiser ak calculer ay données surtout calcul bi moom mooy point fort Excel loolu pour xam naa ñi nga xam ne nii peut-être commencé ni utiliser Excel xam na li may wax su dee yu bees yi tamit euh, après au fur et à mesure yi dem ci vidéo yi danaa leen gën a expliquer. Euh, excel bi nan lay euh, lan moo lan moo war a euh, ñu ne puissance am diggantaan mooy côté calcul bi ci par exemple comme ni ma ko bindee fii su ngeen démarrer excel fenêtre bu mel nii ngeen di am comme ni ma ko bindee nii su ngeen ko démarrer léegi fenêtre bi nag dafa bari ay pàcc ay parties yu bari yoo xam ne nii dinaa dañuy dem ci page bi nga xam ne mooy page bi bi topp ci vidéo ci présentation fii pour ñu xool euh, partie yi nga xam ne moom laa découpé ci interface su euh, Microsoft Excel comme ni ko gisee nii rek première partie bi mu lay woowee ruban comme euh, bu ngeen fàttalikoo vidéo yi bu ñu ma def ci Microsoft Word ñoo xaw a nuroo ruban bi moom mooy partie bi ci gën a am am solo nga xam ne boo xoolee fonctionnalité yu application yëpp presque foofu la nekk li ngay soxla lu ci bari pour mën a utiliser application ci li ñu wax ruban ruban bi foofu la nekk daal léegi ñu am lu ñuy wax euh, adresse euh, adresse cellule adresse cellule laa ko wooyee fii benn case la boo xam ne nii euh, affaire cellule ndax peut être comprendre lu mais cellule après dinaa ci ñëwaat quoi mais adresse cellule lañ koy wooyee léegi su ma ñëwee ci cellule comme de formule barre de formule tamit moom dafa nekk en relation avec cellule loolu tamit il faut ñu ñëw léegi dañuy dem ci cellule pour ngeen xam cellule ak ay ligne ak colonne lan lay signifier li mooy colonne. parce que Excel moom dafa nekk genre genre tableau tableau la quoi toujours da ngeen dégg ñu naan tableau Excel moom sous forme de tableau la léegi tableau yi euh, li leen composé mooy colonne colonne yi ñoo nekk ni vertical lignes yi ñoo nekk ni horizontal léegi nag intersection bi euh, intersection bu nekk entre euh, entre colonne ak ak ligne intersection boobu moom la ñuy woowee cellule saa yu ligne ab ligne dajee ak su ligne bi dajee ak colonne bi rek. diggante boobu noonu mooy cellule bi cellule bi benn genre rectangle la comme ni ñu gisee nii nga xam ne wax ne Excel tableau bi li composé lépp ay cellule la léegi cellule nag foofu ngeen di euh, dugalee information yi léegi euh, cellule bu nekk dafa am adresse par exemple euh, colonne yi dañ ko numéroté dañ ko dañ ko pardon du moins yi dañ ko dañ ko kii par lettre la quoi seen nom colonne par lettre la alphabet alphabet lu suivre quoi gis ngeen ni dafa def A B C D ainsi de euh, ordre alphabétique la quoi bu dee bu dee lii ñu ordre numérique la ordre ordre numérique la par exemple 1 ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 ligne 5 ligne 6 ainsi nag euh, par exemple suñ jëleen colonne A fi euh, dajeeg fii ligne 1 loolu dañ koy wooyee dañ koy wooyee A1 comme ngeen gis ni bu ñu ko boo boo sélectionné cellule boobu noonu. cellule bi automatiquement day ñëw fii ci adresse cellule bi wan la ne la cellule boobu actuellement moom nga sélectionné léegi nag barre de formule bi mooy li nga xam ne nii moom ngay bind cellule par exemple léegi nag lii lépp pour moo expliquer leen ko en euh, en détail pour ngeen gën ko comprendre léegi dañu dem euh, ubbi benn euh, ubbi application Microsoft Excel bi xaaral ma pour ubbi man ngeen ñëw ci bouton de démarrer bi ngeen def Microsoft Microsoft Microsoft Excel. voilà comme ça ni boo tàppee rek da nga gis ñu bindal Excel nii ci kaw léegi nga cliquer Excel comme ni nga ko man maa ngi Office bu de mais euh, concept bi benn la pour yeneen kii peut-être mën a am toute différence mais concept benn la bu ngeen comprendre benn bi rek ci des ngeen euh, woon rek euh, bu ngeen xoolee nii xaaral mu wàññi fenêtre bi wàññi kii bi application bi voilà comme bu ngeen ko xoolee nii. lii mooy ruban bi comme ni ma ko expliqué woon bi moo nekk nii ak euh, partie yi am na accueil insertion comme bu ngeen ci Word rek en page euh, danaa xaw wutee tuuti ak Word parce que am bi euh, kii la application la comme ni ma ko waxee rek pour surtout ay calcul ay partie la loolu moo composé ruban bi léegi ñu jógee ci ruban comme ni ko waxee rek li mooy adresse de par exemple cellule bi nga xam ne nii comme nee naa leen mooy intersection entre fu colonne dajee ak ligne bi mooy euh, mooy cellule moom la ñu wax par exemple fii cellule bii mii adresse mi ngi nekk a toujours euh, non colonne bi mooy jiitu euh, kii bi numéro ligne bi topp ci par exemple lii boo gisee A1 da xam ne kon colonne 1 A fi mu dajee ak ligne 1 moom lañuy ñu wooyee A1 moo nekk nii mooy mooy cellule mooy léegi nag boo tàppee fii benn affaire par exemple nan tàppee fii benn. benn affaire par exemple euh, su ma tapé woon par exemple léegi gis nga automatiquement test boobu day ñëw ci li ñu wax ni barre de formule barre de formule nga xam ne fii boo ko effacé woon fii ci barre day effacé wu fële loolu tamit lu am solo la pour ngeen comprendre ko comme ni ma ko waxee rek man ngeen jàpp ne Excel daal li composé euh, ay colonne la euh, colonne ak ligne léegi colonne ak ligne yi fi ñu dajee mooy cellule yi kon man nañu wax ne li composé tableau Excel bi mooy mooy cellule cellule bi nga xam kon mooy Euh, mën naa wax ne mooy fondement de base bu Excel maanaam mooy mooy fondation bi daal euh, moo tax il faut ngeen euh, comprendre définition bi ma leen di jox nii ci cellule pour ngeen pour ngeen mën a xam lan mooy lan Excel lan moo ko tax jóg léegi comme li wax cellule bi moom fi la def information yi par information la mel ne comme Microsoft Word léegi cellule bu nekk ak information ba nga ciy def parce que loolu après moom ngi utiliser pour boo bëggee def ay calcul wala yu mel noonu la ko defal quoi Euh, léegi bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw fii euh, comme Excel comme ni ma ko waxee ne classeur la euh, classeur suñu waxee classeur kon ñoo xam ne classeur day am dafa war am ay feuilles ci biir te effectivement Excel noonu la bindoon par exemple lii nii feuille 1 la te feuille fi ñu leen numéro fi ñu leen numéroté ñoo nekk nii feuille ñoo nekk nii comme actuellement ñu ngi ci feuille 1 feuille 2 feuille 3 te feuille yi tamit bu la neexee mën ko yokk par exemple boo bëggee yokk feuille boo bëggee yokk feuille bees. da ngay cliquer fii nii insérer une nouvelle feuille voilà gis na boo defee insérer une nouvelle feuille day indi feuille day euh, feuille bi ci topp day daal doon feuille 4 ainsi nga xam ne yow yaay xool nombre de feuilles yi nga bëgg insérer ci cellule bi feuille bu nekk nag ak tableau noonu noonu la Excel bindoo feuille bu nekk ak tableau euh, lii mooy pour zoom par exemple boo bëggoon a zoom boo bëggoon a zoom kii bi euh, boo bëggoon a wàññi wala nga yokk dimension bi dimension. Euh, kii bi euh, application bi lii tamit barre de défilement la loolu ci ci partie la barre de défilement boo bëggee défilé wàcc comprendre euh, loolu la loolu daal mooy partie yi nga xam ne ñoo gën a am solo ci Excel pour ngeen xam ko lii tamit bouton bi mooy bouton bouton Excel bi pour par exemple soo bëggoon a enregistrer document bi déjà expliqué woon naa ne enregistrer ak enregistrer sous lu muy signifier soo bëggoon nag euh, def nouveau document tamit créer benn nouveau document man nga ko def fii tamit mooy pour fermer application boo ko bëggee fermer fii mooy pour imprimer boo bëggoon a imprimer euh, par exemple boo defoon boo defoon sa tableau Excel pare boo ko imprimer fii ngay ñëw euh, donc daal loolu mooy ci gàttal loolu mooy Excel bi maanaam ci présentation bi pour ngeen xamee ko noonu léegi nag après ci yeneen vidéo yi dana ñëw gën a ñëw en détail pour expliquer leen nan ngeen ko utiliser. pour commencer créer ay documents Excel euh, loolu laa ne woon naa ne ko indi comme information ci vidéo bi euh, maa ngi leen di jaajëfal bu baax